li sadinatan bi kullil de moom fa tabaarakallaahu mi ngi doxee ni ko sëñ bi bëggee woon ndax sëriñ bi moom daa waxoon ne e, Touba lay woore waaye jëmi boppam ji rek moo fi dul moo fi dul nekk nam ko waxee woon ni la ko defee mboolem ñu yoroon liggéey bi yebal na leen fi boo leen ak rakkam ju baax ji seex Mouhamadul Fadal mu ànd ak rakkam Cheikh Sëriñ Isaaxa Mbàkke ak jëwri ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi lu ci na rek nam daan doxee doxe na nu mel noonu mbaa nu ko raw ndax lépp dafa gën a rafet ndax sëñ tubaab moo bindoo noonu moom moom moom tayam ju ne day dàq démbam ba tax na liggéey bi moom wax dëgg yàlla nu ko sëñ bi fooge woon rek demee na noonu dafa waxoo nit ne ñii ma koy dénk ñii ma koy dénk ci njaareem euh, awma sikki ci ne la ma bëgg mën nañ ko euh, loolee baatam boobee nag yàlla dëggal na ko ba defe nañ ko noo xam ne bu fi newoon it yaakaar naa ne du mën a raw loola kon sëñ bi moom mel na ne lëm ak bëggam yàlla fekk na ko ci lu ci ne nam daan demee deme na ko mbaa mu demee nu euh, muy ci wàllu njàng mi di wàllu liggéey bi di wàllu gan ñi euh, ak yaatal gi Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne moo fi nekk ak sëñ Isaaxa it lu ñu man ci yaatal ci wàllu dëkkandooy dëkk bi lépp ñu ngi koy def ngir dëggal rek baatu sëriñ boobu bi mu waxoon ne ñama fa bàyyi la ma leen la ma la ma la ma leen fa wóotale danañ ko man kon mën nañ ko mën leen mu rafet ñu ngi ñaan nag moom Cheikh mun Mountakha yàlla yàggal ko fi yokk aw fanam ak wéram ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëñ Touba yéene ko liggéeyal sëñ Bassirou yàlla may ko mu yeggale ko ci barkeb sëñ Touba. it boo ko desee dafay mel ne du lu mën a ñàkk ndax man damaa gis ne sëñ Touba dundam gépp fi ko ci gënaloon ci kaw suuf mooy Touba te sunu borom natt na ko ca natt boo xam ne na mu fa bëggoon a dunde dundewu ko fa kon moom bu yàlla dogalee mu doon sëñ Touba. Euh, dem fa ngir fas ko ko yéene dund rawatina weeru koor ak ni sëñ Tuubaa fonkoon weeru koor mu dundale ko ko dundal dundaliin wee nga xam ne ba yoonu mu de sasoog léegi mi ngi door a am Tuubaa loolu moom fa tabarakallahu xam naa ne xolub sëñ Tuubaa dana ci sedd xolub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ci sedd ndax xasida yi ñu fa yëkkati ci weeru koor wi euh, yaakaar naa ne bu sëñ Tuubaa newoon ci kaw suufit euh, du mën a dund dundiin wu weesu woowa muy mbooloom sëñ Tuubaa mépp di fa daje ñu yëkkati xasida yi diggante tàkkusaan ba timis di ko fanaane itam loola defe naa bu fa ku baax ki nekkaloon boppam it du du weesu loola kon Cheikh Mouhamadou taxaa mel na ne Euh, dundalal na sëñ Touba dëkk ba dundalal na ko ay baayam dundalal na ko ay magam yi nga xam ne ñoom la wóotu ndax ku ci ne it amoon amoon amoon nga jooju yéene waaye nag sunu borom mooy dogal ne mbir mu ne am na kum liggéey boo xam ne am na kum ko dénk li fekk kooku yëg si liggéey ba du doxee noonu waaye jàpp naa ne nii mu woore ci biir kër sëñ Touba gi weeru koor wépp génn ko benn yoon ñu di ko dundal dundi dundalin wu dund wu sell woo xam ne euh, yaakaar naa bëriwul fu mu am loolu defe naa ne moom la ko yàlla dogale ci loxoom kon yàlla na ko yàlla yàgg woote yàggu ko dundal nu it nu yàgg ko dundalal kër baayam gii ci barkeb sëñ Tuuba li sadinatan bi kun